80 comme ça mais nekkoon jeune ci basket c'était une passion wala da nga ci dugg euh, par hasard. non basket en fait c'était pas une passion dama si dugg par hasard. par hasard euh, am na benn dame bu tudd Awa Dia ancienne internationale de basket gaañu ne léegi. Awa moo tax ma basket. loolu peut-être basketteurs yu bari xamuñu ko. Awa Dia suñu koñ la dëkkoon Awa Dia dafa dafa njooloon nag am doole. Mm-hmm. Euh, donc euh, gaaw a dugg si basket bi ba pare gaaw a yéeg ci équipe nationale. Awa Dia huit mois la def jàng basket nekk équipe nekk équipe nationale. aloor mu am suñu benn grand bu nekkoon suñu koñ. Mm-hmm. mu xool ma mu gis ma ma njool am yaram et tout ça mu ne ma ma booy. waaw ma am corpulence mu ne booy tànn da nga war a dem basket yi mu ne sure man grand man basket daal sànni mu ne xoolal Awa huit mois la def jàng basket nekk international mu ngi wër maintenant nag adduna gi yëpp di voyager fu nekk en fait loolu moo dugg sama biir nopp le lendemain rek ma dem terrain basket c' est comme ça que je suis devenu basket defal euh, waaw xam nga Aïcha euh, je pense que euh, li ma basket defal mm. mënuma ko quantifier mënuma ko wàññ mënuma ko poser parce que en fait bi may jógee fii di dem France fekk commencé naa aay si basket tuuti bi ma demee France mais stage moom ma fa yóbbu woon parce que sama papa dafa amoon imprimerie stage moom ma fa yóbbu woon far ma dem fa nag daal di fay des ba pare continuer suma cursus cursus basket ma dem si biir gañe xaalis xaalis bi ma gañee mhm. euh, je me kii su ma ko fooyee mais bu bu suma carrière jeexee si kàmb jaw laa jëm mu mën a loolu laa doon wax sànq vraiment man doomu yàlla parce que yàlla moo mooy inspiré parce que aw ma fa ndey aw ma fa bàyyi aw ma fa mag aw ma fa xare mhm. yàlla moo mooy voilà en tant que jeune am vingt deux ans yàlla moo may inspiré ma jékki bi ba fekk suma première année boobu maa ngi woon Toulouse mais chaque soir suma copain laa daan àndal dem di Bali chaque soir ñu ngi boîte de nuit chaque xam nga 22 ans nga nekk ci àll et tout ça tes copains de même age non mënul nekk mënoo def neneen ay lu dul loolu chaque soir ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi boîte de nuit alors mais dama toog pendant un an ma xool en fait ma calculer ba jékki-jékki rek toog rek un samedi comme ça après midi ma calculer li ma gagné yëpp ci xaalis pendant toute l'année ma xool li ma dese en fait li ma dese c'était zéro pas grand chose mais ma xool li ma gagné woon c'était beaucoup d'argent te réalisé wu ma dara mais suma xaalis fan la jaar ma xam ne càkkaay bi na moom bu ma ko toppee mel na ne fii laay des <laughs> ma daal di <laughs> non càkkaay bu ko toppee fii laay des ma woo suma copain ba ñu ñëw un jour ñu ñëw saka ba ma toog un samedi soir ñoo booy foo jóge ñu dem waaye heure bi jot na pour ñu dem soirée ma ne leen gars yi dewu ma ñu xool ma ma ne leen demuma baaleetuma génneetuma et puis à partir de jour bu kenn ñëw di suma kër sax di ma wax génneel keroog neen euh, Aïcha keroog laa la laa